lépp tawféex la ak jàppandi itam ngir bu ñu fàttalikoo mag ñi daan fekk sëriñ bi gàllankoor yu ne daan nañ ko am mu jëm ci seeni addiya yi yeggoon nañu ci daan leen wisit daan leen sàkkal ab lim bu ñuy war a yóbbu wala limu fan yu ñu fa war a am ba ci limu mbooloo muy war a àll ci gàttal lépp luy tàyyiloo nit di ko jafeel ab siyaar nguur nasaraan gi fi nekkoon daan na ko fexe lu mu mën waaye loolu yëpp tey jii gën naa yomb ci barkeb Sëriñ Tuubaa ba tax jëf ji ñu koy jëf tey ak cant rek moo ci war a jiitu rawatina bi nga xamee ni am na taw tawféex gu day nii Serigne yu Mbacke mii fi toogal Serigne Touba dina ko seereel daf ñoo war a dolli jom ak laxasuwaat ak ngóorgóorlu ngir gën a mën a jëm ca kanam. Gracias. إليه من

suñu atum yi suñu jëwriñ ñu ngi nuyoo te jotli siyaaram ak siyaaram mbooloo mépp di la yëgal ni ñëw gi ñëw nii siyaara sant rek la eh, sant googu nag ci àddu yi di ko mm. ñu ngi ko dugal ci li sëñ Tuubaa waxoon sëñ Modou Diouf jot ni cant googu nag te addiya ji di ko seede ñu ngi ko dugal ci la sëñ Tuubaa waxoon sëñ Mor Juuf Jatti da ko wax ne ko Cheikh Rafal su ko woon am néeg ba ko wax ne ko Cheikh Rafal su ma ko liggéeyal liggéeyal woon am néeg ba mu yegg ne bu bu ma kosee almet teg du ko xàmmee bu ma ci jaamu yàlla bu du ko xàmmee bu ma ci doon jaamu yàlla kon nag suñ addiya yooyu rek dugg na foofu ñaareel ba itam barab ñu toog tey ñaareel ba barab bii nu toog tey. moom tam ñoo ngi koy seeraloo moom tam ñu ngi koy seeraloo sunu cant. ndax daaw ci waxtu wii. ndax daaw ci waxtu wii. dan fee toogoon. dañ fee toogoon. nga wax nu fi. nga wax nu fi. njaay àll goo xam ni. njaay àll goo xam ni. gaynde da ko doon dàq. gaynde da ko doon dàq. sëñ Tuubaa musal ko ca. sëñ Tuubaa musal ko ca. diir bañ fi jógee ba ñu fiy delsi nag. diir bañ fi jógee ba biñ fiy delsi nag. nu yëg bu wér nii. nu yëg bu wér nii. jotoon nañu fi ay yoon yoon. yëg nañ ni jotu nga nu fi ay yoon yoon yow Serigne Saliou Mbacké. yëg nañ ni gàttangu nga nu fi ay yoon yoon. yëg nañ ni yiir nga nu fi ay yoon yoon. moo tax cant gii. du mën du mën a matali mukk li fi nu féete Mbacké. waaye kon nag ñu dugal ko ci biir rek. ñu digal ko ci biir rek. ci fi mu nu féete rek. siyaar bi nag. dan dañ koo ñaanal siyaar bo xamne dañ ci defal xaas dañ ko ñaanal siyaar bo xamne daf ci ci defal xaas mom serigne bi mu àgg sax ci wax nu ne mu àgg sax wax ci nu lepp lu ngeen def di ngeen defal naa lepp lu ngeen di def sax japp naa ne la lu ñepp di def nak lu ñepp def nak ñakoy def ñakoy def mooy mbolo mi mooy mbolo mi ma ne sëñ bi da ko waxaan ne atu ne dëgg ak lu dul dëgg ak lu dul ñaari baaram yi ñaari yi leen te xam ne dëgg dëggul yàgg da nga ci teg da nga ci teg sa bët safaan bi des koy dégg nag mbooloo maa ngi nii hmm? waaw li nga xam ne moo ci dolli ko mooy li xam moo ci dolli ko mooy ba tey barab bii ba tey barab bii ndax ndax noonu de danoo gis ni ndax danoo gis ni de euh, ba adduna sosoo ba tey ba adduna sosoo ba tey kenn def fi lu gën liggéey sëriñ Touba kenn def fi lu gën liggéeyal sëriñ Touba te liggéey sëriñ Touba rek fa war a am te liggéey sëriñ Touba rek fa war a am te nun de bëgg nañ ko lool bëgg nañ ko lool te barab bii nag wóolu nañ ko ci te barab bi wóolu nañ ko ci ak jëmmam ji ak jëmmam ji moom sëriñ Saliou ñu gis ni rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li gën ci alal nga xam ne alal alal halal kese la li gën ci alal xam ne alal li gën ci alal li gën ci alal ak wërsëg ak wërsëg ak xéewal ak xéewal nga xam ne halal kese la nga xam ne halal kese la te xalaal ak makruur nu nekk ci di testis rek tam sonon te xalaal ak makruur nekk ci testis tam sonon la ci sëriñ Touba am te jële ko ci rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam la ci sëriñ Touba am te jële ko ci rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam noonu day sëriñ Touba ñoo ñonam ñoo ñoñam noonu day sëriñ Touba ñoñam lanu ndax nu yàlla wal yàlla ajdur nahlu yàlla wal yàlla ahdur ajdur ajdur an yukhassasa bi khayr yandur an yukhassasa bi khayr yandur xéewal yooyu nga xam ne sëriñ Touba mi ngi ko jële ci rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam xéewal yooyu nga xam ne mi ngi ko jële ci rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam dogu nañ ci daraje barab bi dogu nañ ci darajee barab bii mu jagleel la ko mu jagleel la ko xëpp la ko xëpp la ko ndax kon danañ ci am ndax comme danañ ci am sonn nañ ci xalaal ak makruur sonn nañ ci diggante boobu xalaal ak makruur xalaal ak makruur xalaal kese la ñu soxla xalaal kese la ñu ànd ak yow nga ànd ak yow def Touba def Touba mislas miha mislas miha dëkkam bu tedd bii dëkkam bu tedd bii di turandoo ma ci àjjana di turandoo ma ci àjjana teel nañu te wax nañ la ko fii ci teel nañu te wax nañ la ko fii ci Fawzeyni dimbali nu Mbàkke dimbali nu ci Mbàkke dimbali nu Mbàkke dimbali nu Mbàkke dimbali nu Mbàkke jërëjëf bëgg nañ liggéey Sëriñ Tuubaa fii bëgg nañ liggéey Sëriñ Tuubaa fii noo xam ne noo xam ne adduna sëpp dañ koy xam adduna sëpp dañ ko seede te yow rek lañ ci yaakaar te yow rek lañ ci yaakaar yow mii rek lañ ci yaakaar yow rek lañ ci yaakaar leneen lu nit di xalaat nag waaw barke Ahmadou Bamba jaaxalunu leneen lu mu doon nag ragaluñu ko sunu xel dal na ci def sëriñ ginnaaw mukk ci adduna jërëjëf duna daw jërëjëf jërëjëf Mbacke jërëjëf suñu aatu jërëjëf Mbacke ma ñaan rek wax loo xam ni dama koy wax ci turu mboolem waa daara ji waaw nañu dolli dal tuuti rek noo ngi ànd ñu ñépp di la sant Mbàkke di la seedeel suñu cant ci suñu jëwriñ muy sëriñ atu mii fii ni koy seedee mate na ko sa teewaay doy na ci sëkk waaye ñoo ngi xam le ni mbooloo maa ngi is bu tar ñun day suñuy xol yëpp takk nañ ko def benn jox la ko waaye kii jëwriñal si sëñ Tuubaa jëwriñal lu ko lañ te xamuñu lu tax mu jëwriñal lu ko ñu ngi lay seede ni li ñuy wut ci sëñ Tuubaa muy liggéeyal ko ak pëstéef ak sopp ko ak wóolu ko wax dëgg yàlla roy ceef li ci doomu aadama nag moo mënta mat waaye moom day ñun ñii dale ci man ñi nga xam ne ñi ciy mag ci laa bokk ba ñu àndee ba tey ku ko waxal lu niru matadi day boo seetee bopp gis sa junneem daleel ci man waaye li nga xam ne moo am solo te mooy tax ñu wuti sëñ Tuubaa riir jox ko suñu bopp de boo xëyee dina la ci toll loolu rek lañ mën a seede ci moom. noo ngi ñaan nag li nga xam ne kenn ku ne mi ngi ci yow te sëñ Tuubaa di ko dindi ci nit ñun ñëpp ñoo ko feexle waaye moo gën fopp moom mii te seede si sa mag ñu baaxee sedd nañ ko seede nga ko ñu xamal loo mën di dégg ci àdduna mbat ak loo mën di gis ñu de def nañ sunu xol yëpp benn ànd ak moom jiitaloo ko te doyloo ko ci bëgg nag yaa ngi koy ñaanal. waxtu ne waaye nga dogul ñu sëñ tuba benn pakk bu mu ko dara ci bu mu dal ñu ànd ak moom saay rek baatin sunu xel dal na nag wóor na yàlla ni ci lii mu nekk ñun sunu ngor ak suñu jom ak suñu bëgg sëñ tuba ñu sax ñu xool place bi ndax sëñ tuba ko jagleel te xam nañ ko waaye day na sa xel dal ci mbooloo xam na ni sëñ tuba ko téyel boppam leer nañ ñun nag ñoo dogu ci barab bi mbàkke nga yàgg ci te wér yoonu murit wi nga jiite nga am ci ndam loo xam ne kenn mësu koo am te ñuy nelaw ñi réer ñëpp gindi ko ci sëñ Tuubaa nga yóbbu leen sëñ Tuubaa ñu ngi ko yéene di la ko di ko ñaanal fuñ toll noo nii nag xol yëpp benn lanu ñoo ngi suñu ginnaaw jëriñ jox la suñu bopp jaayantewaat ak yow ñaan nag yi jëm ci suñu kam kanam muy màggal muy gàmm ba ci léegi xadara yu demee noonu ñu defee ko at ñi noo xam ne mosuñu koo def bañ dalee liggéey ba tey te nga fekkee lépp seedeel na ko ci sëñ Tuubaa yàlla na yàlla jox fan woo xam ni kenn mësu koo am te ànd ak wér te nga am lu kenn mësu am suñ tubaa ndax soo ko amee rek ñun suñu biir yëpp baax saay rek baatin ñu ngi sant bu baax Mbacke. maa ngi leen di bu baax a baax di leen sant wax ji gis nañu jëf yi maa ngi leen suuri saxaaratu suuri mooy seere fan danaa loola si kabaa yi la bokk yi gën a màgg ci bàkkaar la bokk saxaaratu suuri si kabaa yi la bokk moo tax noonu koy teet fu sunu ko yéene def kon nag ama saydina bi ma alima ama kunna lil ghaybi haafisin ñu ngi seere nañ yéen ñi ñu ngeen jëflante ñun ak li ñu wax ak ñun lépp mbir mi suñ ko baax dara jënd ko ci ñu boo ko jàppewul la wax jàppewoo ko lam jëf xanaa jàppe ko loo jot mbaa jàppe loo dégg loolu moom yàlla tëddani ko hmm. seere nañ leen yéen ñii de ana ñeen ñu sëñ Tuubaa yëfi jëf yi yëfi ak gàmm yi mënuma koo lim yëfi ngeen di ci daal yi mënuma koo ci la bokk waaye mu fi ciy jóg ne lépp nag sëñ Tuubaa mi ko indi fi ko nangoo moom lañ ko jàppe ñu ngeen gis moom lañ seere nag lii sëñ Tuubaa jàng xasida yi ka joxe ak yi ak fu sama soxla suma ndigal jëm rek yéen a nga fa jëm bu dem ci daara gis seen i jëf ñun suñ si kër gi gis si seen i jëf ku ci kër sëñ Tuubaa nga defe ci yére yëpp yéen a ko fa andi loolu nag moom rek loolu ma seene ne yéen a ngi jëf ci yoonam te di ko te di nangu ci ay fekk leen ci ngeen koo defal yàggul nangu yàggul ko yàggul ko nangu ak yi ci ci ëddiye yàlla na leen ci fekk wax na ne bokk na ci njëriñu addiye ñu loolu addiye jëriñ te wax ko dane bokk na ci njëriñu addiye di bari la néewoon di barke la bari woon di def fa dara nekkuloon fekke bu ñu jógee bari na fa mu barkee ko fekkee néew na fa mu bari ko fekkee dafa nekkuloon mu def ko yàlla na fekk ci ñun ñëpp jëfee bi seet ko seet nañ yéen a jëfee bu baax ci yoonu sëñ Tuuba loo xam ne jëmm dong nga tax dara yéen a feeñee lépp day lu baax moom la ñu mën a seere moom la ñu mën a jàpp loolu ngi saa ni ma demal ngërëm fekk bu baax a baax ñu ne àgg ci yoonu jëf ci ak jëriñ ci nu àgg ci am na lu ma leen waxoon nag màggal bi ak gàmm gi la naa yi ngeen def ci màggal bi moom laa jàpp muy sama màggal ñu def ci gàmm gi moom laa jàpp muy sama gàmm ndax nag jëng na ma ko yéene woon ñu ne yemuñ fenn waaye def nañ ci loo xam ne yi mu laa bëgg ñu mu demee ni munu maa def sama loxol bopp muy sama tànk yëpp lañ may defal seen jëf yi ngeen defal màgg yi nag jàpp tax na sama xel daal jàpp naa ne màggal naa jàpp naa ne gàmm na sëñ maa ngi <laughs> ñëpp taal na seen loxo شكر الذي بفضل مدى يا مدون مدين ومدون قمنا شكر الذي بفضل مدى يا مدون مدين

waxtaan wi dolli nañu ay soññe waaye itam gën nañoo dolli ak rafet njot ci suñu diggante ak Serigne Touba ci biir liggéey bi nu sóobu te ànd koog Serigne Saliou Mbacké waja aj waxtaan yu jàllee Serigne Saliou Mbacké defal nañu geneen tawféex ngir mbooloo mépp àndaat nañu siyaarewaat Serigne Saliou Mbacké kenn ku nekk jàkkaarloog moom ñu def ay kuréel ku dugg mu ñaanal leen ba ñëpp daj muy ci góor ñi di ci jigéen ñi تبعدني أمامه المدد لي حسابني ذنوبا للميوزي تبعدني جملة الأداء يا مليك يا من أريد